ñëpp di ziar ñëpp euh di leen balu àq di ñëw di wax ni dafa am lu am solo loo xam foog ñu bàyyi ko xel damay wax ni bu négee ni fekkon ah ñun ñuy fekk ñu bolo ni pour xol lu sharia doxé Sénégal nañ xaar leen lu laal alcorane xam nga ndax dégg ngeen li wax de manam négee ni bu fekkon ñi nga xol ñu dajaloo ñun ñëpp ni di xol nu ñuy def ba sharia dox Sénégal kon ni ko yoon ci Yàlla Muhammad bëggee salaa salaam kon kenn du laal alcorane dinañ xaar leneen lu laal alcorane allahu akbar léegi nag dafa am lu am solo il faut message bi leer parce que temps bi dafa gàtt mooy damay wax ak autorité compétente yi gis nga Ndeye Saly Diop bi nga xamante ni moom moo yor ministère de la femme de la famille et du genre du genre mooy parité ci lañ koy dugal parité tubaab dafa toll ci góor ak góor jigéen ñoo tollo, góor ak jigéen ñoo tollo. ci tubaab dafa toll ni ni góor di amee jabar noonu la jigéen di amee jabar ñoom foofu lañ toll maanaam ak ngóor jigéen kessel. la ñu waroon a booloo ñun bu yàgg fexe ba ministère boobu bañ fee am Macky Sall def na ko fii ñuy seetaan rek léegi nak ñuy laal suñu alcorane karim bi damaa bëgg mu leer na ko autorité autorité compétente yépp dégg mané même bu yeen bu gën jugulee ñun dañuy jug ta daara yi dañ koy tijji te bu gën yéxé daara yi dañ ko tijji ñun dañuy jug Macky Sall na tijji daara yi na respecter sëriñ si na respecter alcorane ñu jox nak ñu koy jox nak délai bu gatt te ngeen xamni xam ngeen ni yeen ñun fonk nañ leen respecter nañ leen trop wa xam ngeen ñun suñu jug duñ leen tag bu ñu jug mom duñ leen tàggu mom ay nit a ngi jug di dem ci buntu palais bi ndax ndox courant bu cher Macky Sall ku ko tegoon loxo léegi rek gendarme ñëw ku ko wax wax bu jàll baat tuuti rek gendarme moo la jël si. waaw léegi ah, kon Macky Sall daal moo supéré alxuraanu karim waaye ñun jullit Sénégal sàggat nañ de nañ jug ñu jàkkaarloog Macky Sall ci boppam la war a waxal ndax moom mooy chef suprême mooy magistrature bi gën a mag ci réew mi. nañ jug wax ak moom mu bàyyi ñu sunu alxuraan ko laal na sàcc pétrole na sàcc gaz na sàcc courant nañ sàcc xaalis réew mi nañ def lu leen nañ ñu bàyyi ñu jaamu yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullah